léegi su ma jógee ci loolu damay ñëw ci géejawaay dama ñëw ci géejawaay parce que gisoon naa mbëri ku ci ba di nga ne Malick Gakou ku ci bëri di nga ne maa ngi sant Malick Gakou ma mais léegi déggatuñu Malick Gakou déggatuñu ko fenn digganteem ak mbëri dafa ñagas dafa ñagas wala dafa dafa dafa am lu ci nekk. waaw yow yaa déggul Malick Gakou waaye Malick gàkku moom moom jant la ndax alaaji Hadj Malick lañ ko tuddee sëriñ tubaal la yaakaar te ñaar ñooñu réew mi mënuñu leen fàtte. alaaji Malick lañ ko tudde Serigne Touba la yaakaar ñaari kasket yooyu doy na bayre xam nga problème bi mooy Malick Gakou amul site wala internet wala rajo bu ma ñemee laaj ba mu jeex te laajoo ma Malick Gakou soo ko waxee bu dee cassette ma dagg ko bu dee leneen ma dagg ko ndax Malick Gakou gàcce nga alaama laa ko yox fu ma toll ku mu metti bul seetaan ku mu metti fattal sa nopp Malick Gakou deselul géejawaay dara deuxième division la jëlee GFC ba première division yor leen 9 ans at mu ne 31 millions gàcce ngaalaama Balla Gaye Modou Lo 11 millions la jaay 6 millions ticket 1 million la ma jox ni ma jëlal oto jël hélicoptère kon gàcce ngaalaama Malick Gakou Lac de Guiers 3 millions laa ko jëndal billet jox ko 2 million dama koy dama koy leeral jënd jëndal ko nag jëndal ko 600 ticket jël hélicoptère mu naaw kon kuy takk ngemb fii ci biir Guédiawaye Malick Gakou dimbali na la.